salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum yéen ñi nga xam te yéen a yéen la la la chaîne leader Feeling Dakar TV tey au lendemain de la victoire des Lions macha allah le Sénégal qui s'est qualifié hier euh, face à l'Équateur sur la marque de 2 buts à 1 macha allah le sénégalais maam réew sénégal ñëpp kontaan macha allah ñu gis suñu président Macky saal génn xam nga saafanteeg askan bi donc dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo am ndam mu yàgg ñoom ba ndam ba incha allah coupe bi ñëw sénégal incha allah tey entretien exclusif entretien spécial ak nga xamante ni moom yaakaar naa ni ce n'est plus à à présenter de son vrai nom il s'appelle Mody Fall Mody Fall de son vrai ñu gën ko xam ci euh, tonto Sène tonton Sène acteur culturel tonton Sène acteur boo xamante ne macha allah Sénégal xam nga ko baax a baax a baax te ñu ñëw këram waxtaan ak moom li nga xam ci li ci ci actualité macha allah et puis ci liggéeyam muy le le cinéma sénégalais euh, ñu bàyyi ko mu nuyoo d'abord ñu dugg ci émission bi macha allah tonton maa lay ziar. Euh, ñu ngi lay delloo ziar euh, merci beaucoup donc Daouda vraiment de revenir jox ñu encore opportunité ñu mën a waxtaan ak askan wi. Euh, donc ñun ñu nekk taalibe bu xee xeebu rek et tudd Mody Fall euh, donc euh, ñu di ma woowee tur nag yu bari ci entre autres à cause de mes personnages ñenn ñi naan tonton Sène ñi naan monsieur Ndiaye ñi naan général coach et cetera mais jamono yi nag gis naa ne public bi moom Sugar Daddy daal moom la ñu xewal waaw di ma ko tuddee voilà tay moom Sugar Daddy moo moo yor bi Eh, donc euh, di wax euh, bon képp koo xam ne eh, yaa ngi bëggee ak di seetaan Feeling Dakar eh, maa ngi lay nuyu di la bëggee di leen euh, wax ne ah fas nañu yéen a seq waxtaan man ak Daouda n'est-ce pas pour échanger ci wàllu dégg nga maam actualité donc Daouda moo di la jëfal jaajëfal di la gërëm. si opportunité bi nga ma may bon di wax ne ñu ngi lay déglu. je crois que fii sama kër la je crois que bii mooy la troisième fois kii ma fi ñëw te à chaque fois dañuy waxtaan lu bëri Sénégalais rek da nga koy bëgg macha allah. dëgg la dëgg la jërëjëf vraiment ñun tam ñu kontaan ci lool parce que ñun eh, comme ni ma la ko waxee rek taalibe bu xeebu la eh, di jaamu soxla askan wi. parce que xam nga en tant que homme public eh, yàlla nattu ñu donc milieu cinéma waaw ñu nekk ci en tant que acteur comédien. Hein, mais aussi euh, en tant qu'auteur euh, scénariste metteur en scène hein, directeur d'acteur euh, donc ñu xam nga askan wi rek lañ fi nekkal waaw di fexe di jaamu seen soxla et di fexe itam di liggéey loo xam ne ñoom danañ ci gis seen bopp mais aussi et surtout nekk seen ambassadeur euh, dans ce pays mais également euh, à l'étranger voilà. mooy tonton Sène macha allah muy euh, doyen Modou Fall nekk acteur mais mais en plus nekk délégué de quartier. donc euh, ñu gaawantu foofu noonu rek mais tonton kon yow yaay chef quartier fi nga xam te mooy Grand Dakar. waaw waaw waaw loolu la yàlla dogal nag euh, bon ma nekk chef de quartier bi fii à Grand Dakar mm. mu nekk itam fonction bu ma neex euh, boo xam ne en tout cas maa ngi jéem di ko exercer donc de la meilleure manière te am naa yaakaar ne askan wi di nga am neruñu ci. parce que man góor jigéen mag ak ndaw bon ñëpp jàmm lu ñu seq jàmm lu ñu euh, li ñu jëflante parce que man dama doon nit koo xam ne suma métier xëy na moom ma ko permetre en tant que communicateur mais yàlla dogal ma am facilité communication ak ñëpp góor jigéen mag ak ndaw donc euh, voilà yàlla na jàmm yàgg daal waa di bëgg nag waa Grand Dakar parce que ñoom ñooy suma lépp man fii laa identifié wu bañ naa ko ba dama nekk donc euh, dans le comité de développement sanitaire maanaam comité de santé bu centre de santé bu grande Dakar donc di yëngu ci bépp activité de développement boo xam ne am na ci quartier bi particulièrement dans le domaine culturel parce que ci euh, centre donc euh, socioculturel bi am na fa programme bu ñuy wax le programme nga mu jëm ci wàllu cinéma donc sosoo ci Alain hein, qui est donc un cinéaste euh, connu, hein, qui est vraiment un enfant prodige. Euh, donc de grande Dakar mu nekk donc na euh, soxee ko grande car il vit à Paris mais il fait la navette donc programme yéen ngaa bi muy doxal également et man euh, nekk naa seen doyen nekk maanaam seen seen seen espèce waaw seen kilifa waaw dama mel ni consultant ji ñoom voilà macha allah dëgg ñu dugg ci waxtaan bi ah dugg ci actualité ah, jamono ji maanaam suñu xoolee mi neex at ah, ginnaaw yàlla démb on on s'est qualifié li nga xam ne mooy huitième huitième de finale mondial bi Qatar 2022 njëkk bi on a gagné mais les deux autres matchs ñu gagné ñu gagné macha allah. Mhm. y a pas de problème ñu gagné macha allah mais mais les Sénégalais yi kontaan ñëpp nekk ci ginnaaw équipe donc mais balaa ñuy wax ci match yi papa yow nan ngay nan ngay dundee les matchs du du Sénégal. waaw waaw mais match du Sénégal yi vraiment di ko dund rek avec avec passion mais avec grand plaisir aussi parce que vraiment match yi bu ci nekk rek bon à l'image de tous les Sénégalais vraiment dañuy dañuy dañuy nekk si tension. Eh, man mu gi sax dama naan waaye man lii baa duma cardiaque loo sax parce que xam nga man sax bon euh, je plus porté vers la culture mais xam nga match bu Sénégal euh, mu nekk bon donc euh, de niveau mondial xam nga loolu vraiment ñun ñëpp dégg nga maam ku ci nekk dang nga ci da nga ci mooy eh, di ñaan yàlla Sénégal gagné eh, bu fekkente match yi dafay déroulé wu vraiment da ngay gis cet engouement là cette passion cet amour n'est-ce pas donc que bon, bon, de, voir le Sénégal gagner, de voir le Sénégal bon, donc, euh, briller. Hein, et parce qu'à travers ce rayonnement-là, ñun euh, joueurs yi euh, dañuy yëkkati réew mi dañu dañu nekk suñu ambassadeur dans le monde ñu gën a ràññee Sénégal et mu nekk l'actualité dans le monde san comme ni mu amee woon en 2002 n'est-ce pas avec la génération des El Hadj Diouf eh, ouais, ouais, ouais, Fadiga, hein, eh, euh, waa Henri Camara et bu euh, Pape Bouba Diop ne regrettez bu Bouba Diop ma di ko ñaanal yàlla na suuf sedd ci kaw moo tax démb victoire bi ñu ko dédié mais ñëpp ci kontaan Sénégal yëpp adduna yëpp Afrique yëpp donc euh, vraiment loolu man loolu daf ma siggil man personnellement parce que ku mel noonu li mu def ci footballu Sénégal Euh, rayonnement bi nga xam ne am na à travers donc la victoire euh, en 2002 de du Sénégal sur la France et mu ñëw marqué ce but légendaire la qui était annoncé par Gorgui notre Gorgui légendaire donc euh, vraiment donc loolu dafa dafa neex ci xool daal dafa neex ci xool dafa rafet et puis gis nga mën naa ne loolu symbol la en fait parce que yàlla mi dogal anniversaire u décem tombé ak suñu match boo xam ne pratiquement final la euh, dans le cadre de la compétition mondiale parce que fi mu toll nii bon ku ñu dóor eh, da ngay da plier bagage hein donc mu doonoon loo xam ne vraiment c'était un enjeu bon de de de grande envergure pour le Sénégal et ñëpp yaakaaroon ci ñëpp ñaan vraiment ku nekk da nga am euh, tokki nen mais alhamdulilah n'est-ce pas bi ñu joueurs yi donc délivré démb parce que vraiment c'était un match capital sur lequel euh, vraiment tout le monde donc euh, voilà avait avait un désir ardent n'est-ce pas donc euh, d'avoir cette victoire parce que non seulement euh, Pape Bouba Diop mi ñu ko dégg nga euh, dédié loolu loolu lu rafet la lu rafet la lu am solo la mu mel nii eh, yàlla moom bon loolu missaal la daal misaal la pour wane ne eh, moom ni mu toll Euh, li mu def euh, pour Sénégal ci football euh, match boobu tombé ak anniversaire u décenn et puis surtout ñu ñaax xale yi ne leen football leen pour da nga am Pape Bouba Diop mais xale yi itam def ful ak fayda ñëw nekk des vrai gaynde n'est-ce pas reyante parce que gis nañ ne match bi vraiment dañ ko mérité ils se sont battus comme de vrais vrais lions et li ko wane it mooy ndeysaan après après le match vraiment y avait y avait y avait un, un engouement populaire extraordinaire hein, ce talent là euh, donc d'unité hein, de joie explosive Sénégal yëpp bokk ko ñëpp bëggandoo mais loolu loolu loolu dara mënu ko wecci quoi et jusqu'au palais présidentiel comme tu l'as tantôt annoncé vraiment mag yi donc mi mi mbir mi xool affaire bi affaire yu ñëpp la waaw mais bien sûr parce que loolu day wane rek bëgg Sénégal day wane ne gis nga Sénégal ñun ñëpp bëgg nañ ko Sénégal ñun ñëpp bu ñu sañoon dafay rayonner dans le monde waaw xëy na nag nit moom bañ ak làmmiñ ñoo dëkk des fois les Sénégalais am problème entre ñoom mais bu ñu demee ba nga xam ni mbiru Sénégal la luy sigil Sénégal ñëpp dañ ciy bokk ànd kon vraiment élan boobu amoon ak engouement boobu et vraiment cette unité yàlla na ko yàlla saxal ci Sénégal ba doomu Sénégal yëpp xam ne eh, ñun daal nañu bokk jubluwandoo. Euh, jëmandoo ci loo xam ne euh, suñu intérêt réew la rek loolu moom moo am solo mais ñu nekk benn ñu nekk benn te loolu nag li koy def mooy e ku nekk rek li nga yéene sa morom euh, li nga yéene sa bopp yéena ko sa morom ñu ànd nag ci doxalin googu je pense que ça c'est c'est c'est c'est miraculeux. am na solo kooku mooy tonton Sène macha mais ñu dugg encore ci match bi dëgg la match bi match bi match bi jàll na démb mais on a l'Angleterre en quart de finale. ñu dem dem le coach euh, Aliou Cissé mu wax mu wax wax ju am solo mu ngi la compétition vient nga démarrer donc Angleterre pays bi nga xam ne ñoom ñoo créé football. waaw waaw waaw dëgg la dëgg la pays la boo xam ne wax dëgg yàlla eh, xam nañ leen ci football seen xereñ seen mën a football mais itam euh, euh, li ñu prouvé dans le monde à travers le football mais moi je me dis que euh, adversaire lañu adversaire de taille parce que adversaire kenn du ko xeeb waaw te adversaire nag bu jar a jàkkaarloo la waaye booy xool itam da nga naan Sénégal fi ñu toll nii et am ñu des joueur vraiment professionnels mais de niveau mondial et puis ils l'ont prouvé moo tax vraiment damay wax xale yi ne leen Euh, gëm leen seen bopp xam leen ne gis nga euh, àdduna moom fi mu toll nii et professionnalisme bi dafa àgg niveau boo xam ne benn équipe jarul a xeeb xam nga xam nga fan la ñu mënantee mooy ma gën la bëgg victoire bi victoire bi su ma la ko gënee bëgg mënoo def lenn ba da nga am du ko jël ci yow donc moi je respecte l'équipe d'Angleterre mais man je me dis que nos lions amul ku ñu mënul dóor ci jamono yi xam nga affaire bi lan la gëm ko jiital fulla ak fayda loolu rek laa leen di ñaan yéen lion yi gëm leen ko am fulla ak fayda xam ne xoolal gis nga euh, doomu aadama benn yoon rek lay génn àdduna te itam ki la gën a gëm ne bal bi moom moo ko moom tey jii kooku moo koy am parce que lépp li ngeen war a am techniquement ba am niveau bi joueur euh, yëpp am et au niveau mondial au niveau international je veux dire parce que nag et ku mel ni euh, donc El Hadj mais dem na fa toj ko eh waaw waaw waaw mais ku mel ni Sadio Mané dem na toj ko te Sadio Mané gis nga malgré son absence équipe bi wane na ne mais ils ont un niveau donc xam nga mbir mi lan la pas de complexe jàkkaarloog sa moroom wan ne ko mbir mi gënoo ma ko bëgg loolu rek moom moo fi nekk loolu laa leen di ñaax parce que yéen eh, euh, taxawaayu euh, Aliou Cissé rek Aliou Cissé Aliou Cissé Aliou Cissé ah, Aliou Cissé si si si si euh, kii bi ci bord de terrain bi macha allah muy jox ay ay consignes el tactico. waaye mais xoola xale yi ànd leen ak el tactico ngeen doon benn xoola ngeen avancé gëm ne xool ah. gis nga doomu aadama dara jomb ko waaye li nga bëgg jot nag e da ngay joxe njëgam waaw yàlla suñu borom sax eh, mayewul lenn. waaw danaan la lii boo ko bëggee am faw nga yegg fii donc def leen noonu parce que ñi ngeen di jàkkaar jàkkaarloo nit lañu comme yéen rek waaw te nag amul complexe ñoom bu ñu leen ko gën a bëgg yéen gën leen ko bëgg mbir mi bu boobaa incha allah di ngeen sori wala sa ngeen dem ba jël coupe bi pourquoi pas parce que c'est possible c'est possible il suffit d'y croire croire c'est pouvoir ndeysaan eh, impossible c'est pas sénégalais macha allah donc ñu ngi ñaan comme li ko yaakaar naa ne yéen ñi nga xamante ni yéen les lions du Sénégal ba nga xoolee vidéo bi di xam ne tonton seen visa galvanisé macha allah ñu ñu dugg ci beneen chapitre na ah, mais tonton il paraît que léegi da bàyyi barbe bi génn xam nga nga indi kii beneen look macha allah et puis man ci écho ñu ngi le président Ousmane Sonko sa style bi lay lay lay jël quoi. waaw <laughs> Ousmane Sonko wax nga bon teint. bon que j'admire beaucoup parce que vraiment ci anam yu bari dafay wane bëgg gi mu am ci réew mi eh, ak euh, da nga li mu bëgg da nga am réew mi euh, àgg fa maanaam ci kawe donc loolu boo dañ koy dañ ko koy vraiment féliciter mais mais nag dëgg la question bi nga wax ni man Ousmane Sonko du tey rek la ma yàgg di imiter ah gis nga bi may dóor suma felt bi chapeau bi ci idol no dama ko tàmbale quelque temps après ma gis muy def campagne sol chapeau bu mel noonu mu mel nii daal moom moom man euh, sama look daal neex na ko. et puis da ngeen a xawoon doo quoi man. waaw non non xam nga nit nit boo koy toppandoo da ngeen di dem ba xaw a niroo parce que léegi ci barbe bi la ñëw. ah oui parce que man nag barbe boo mën naa ne eh, bokk naa ci ñi ko ñi ko ñi ko xewal Sénégal franchement parce que depuis Idole euh, j'ai apporté ce nouveau look là de la barbe booy naan ko barbe poivre et sel. poivre et sel waaw noonu la ko xale yi woowee nag. loolu la ko xale yi wooye xam naa. Eh, ki dañ ciy foo quoi. mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr waaw xale yi daal bëgg nañ ko macha allah loolu nag la yàlla dogal. eh donc man je ne m'étonne pas que non Ousmane Sonko nandite la quoi non non non booy boobu nandite. mais loo koy wax mi lay mi lay seetaan. non lu ma koy wax mooy eh mais gis nga gis lu baax nga roy ko loolu dara newu ci adduna sax loolu moo fi am njëriñ. man gis nga gis nga man suma àddina noonu la toujours bu ma gisee kuy kuy def loo xam ne eh, nit ñi daf leen neex wala mu baax wala mu gën ci nit ñi mais dama koy roy donc euh, y a yow yow ñoo far quoi. <laughs> mais mais mais mais papa du ñu génn ci charge Ousmane Sonko parce que wax ci wax ci moo ko moo ko indi mais noo gisee dox doxalinu Ousmane Sonko et puis son kii problème bi ñu am ak l' état du Sénégal affaire affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. coow lu bëri woon temps yii passé mais léegi xëy na xaw naa sedd mais loo gisee affaire Ousmane Sonko ak état du Sénégal ak kii ak affaire moo Adji Sarr. waaw non man euh, ni ma gisee da maam euh, coow yooyu yëpp nga tudd mooy que gis nga àddina moom bu ak làmmiñ ñoo dëkk waaye gis nga euh, man réew mu ne ni ma jàppee ne noonu la war a doxee mooy eh, nit mën nga bañ a bokk ak sa nawle morom gis-gis. wala ngeen bañ a bokk bëgg-bëgg waaye e, boo leen jàppee ne yéen yéen a bokk réew rek foofu réeroo mën na faa bañ am parce que nag nguur ñëpp ko bëgg a affaire ñi koy wut quoi man bokkuma ci ñooñu parce que man wax dëgg yàlla damay ñaan yàlla liggéeyal suma suma suma réew rek e, donc ak ak sama tolluwaay mooy maanaam ci biiru cinéma politique moom awma ci benn ambition wax dëgg yàlla mais e, man dama jàpp ne nit ñi bu ñu jiitalee yàlla xool na ñoom li leen boole moo ëpp doole li leen taqale parce que li leen boole Sénégal la parce que Sénégal tey jii ñaan eh, ñaanuñu ko yàlla mais bu doon tàkk eh ben euh, ku nekk de nga maam doo tal sa bopp doo tal sa morom mais yàlla may nañu ñu ñu am jàmm fii ci sous région bi eh ba nous avons la paix quel que soit alpha ak euh, àddina lu mu mën a lu mu lu mu metti ak lu mu am am jafe-jafe nous avons quand même une certaine stabilité pour ne pas dire la paix te gis nga jàmm jàmm gën lépp nit kii lépp loo am jàmm ko gën kon yàlla nañ yàlla may jàmm et man ma koy ñaan rek vraiment mu jàpp ne bon Macky Sall bon c'est son aîné donte ne sax xëy na li mbëtt bëgg la bar bëgg mais mën nañ ko rafetal et ñu jiital yàlla nag parce que xam nga yàlla moom et lépp lu nar a am rek maanaam décidé na ko ci aras donc xëccoo beeg xiiroo beeg ngaayoo bi yooyu yëpp jar ko fi xam nga mag yi am na ay jamono xalaat kenn ah xëy na moom peut-être xëy na yàlla am lu mu ko déy mais kenn mësul woon xalaat ne Macky dina toog ba doon président donc ki ko war a doon allah kulli alin da koy doon li ñu war rek mooy ñu fexe e woote jàmm ci dëkk bi eh, bu jongante amee eh, ñu def ko dans les dans dans les règles de l'art c'est-à-dire def ko euh, ci anam anam yoo xam ne yu yiw lay doon et par des arguments parce que parce que li am solo gis nga am politique mooy nga am argument de valeur nga am argument de poids euh, nga wone itam loo xamante ni dina tax nit ñi wóolu la loolu rek moom moo am solo man daal en tout cas ci loolu laay ñaax politiciens yi man moom awma kenn ku may ku may ku may fanal wala kenn koo xam ne dama koy contre man li may ñaan rek mooy Sénégal nekk ci jàmm nekk ci stabilité et puis réew mi développé wala réew mi développé réew mi jëm kanam parce que boo xool Sénégal sax fu mu jógee ak fi mu tollu nii kenn mënta weddi ne am na ay avancé xëy na nag lépp doyul nit mën na ñëw ne man de e bu ma fii mu toll nii mu romb ko wala tamit nit ne ah man de comme eh, toll naa fii bëggoon naa danga ngaa mottali ko mais loolu yëpp ay ay gis-gis la ay bëgg-bëgg la ay waxtaan la yoo xam ne eh, dañ ko war di jox ak askan wi eh bien ba ñu ànd ci li ñu bëgg mais ñu def ko ci kaw jàmm. Sénégal daal nañ ñaan yàlla jàmm parce que gis nga dëkk yi wootewul jàmm yëpp fexe ba jàmm jooju jóge fa dem nañ ba bëgg jàmm ji dellu si te mënuñu koo am kon boog ñun li ñu am muy jàmm nañ ko sàmmandoo ñun ñëpp bokk da nga am mooy euh, ci mooy ci daal te bañ bàyyi waaw te ci jàmm ji nag ci la lépp xaj ci la da maam toog ba jël lenge yi joxe ko ci la xaj euh, da am te coow du ji ballu tàkk waaye ci la itam toog xaar eh, ba yàlla dogal nga jël leng yi eh, doxal waaw parce que li am solo mooy Sénégal jëm kanam rek waaw yàlla na ko yàlla dogal bi jaay Sénégal jëm kanam Sénégal ira de l'avant ba soobee yàlla kon jàmm gën jamaa ah, yàlla may kii may jàmm ñu wàccee euh, kii cadre Ousmane Sonko dugg ci wax aar macha allah euh, parce que ñun bula la xamee sa grâce au cinéma bu la xamee sa grâce au théâtre bi nga xam te yaa ngi ko def yaa ngi depuis des années macha allah mais mais mais mais papa le cinéma sénégalais ne nuyu nom. Hmm? récemment nga dégg actualité bi amoon temps parce que entre Sanex ak waa Soleil Levant no entre Lamine Ndiaye ak waa Soleil Levant donc ñu yore ko xaalis yéex koo fay bon yow mi nga xam te ni en tant que acteur te xam nga ne xam naa ne mos ngaa côtoyer doyen Lamine Ndiaye ba nga ko gisee mu wax bay jooy en tant que homme de culture lan la def. waaw non non loolu dafa ma métti dafa ma touché te man bokk naa ci ñi mu gën a touché ah. Euh, parce que Lamine maag moom dañu bokk ci njëlbeenu euh, théâtre populaire sénégalais eh, nekkoon ci keppaaru comme ni ma koy waxee assez souvent ah, ci suma ñoom papa Ablaye Seck Abou Camara eh, ñoom Alaaji Moor eh, euh, ñoom Mokhara Jigéey Baye Pël n'est-ce pas tous ces ténors là avec ces grandes dames ñi nga xam ne ñoom ñoom waaw waaw waaw bon Justine Zambo elle était au niveau de Sorano mais man ñoom ñëpp et eh, dañu nekkoon suma ay mag nekkoon suma ay kilifa ba ci ñoom aw seen Sarr Ismaïla Cissé les euh, ñoom Pa Douta Seck Omar Seck et cetera ñoom ñëpp eh, dama nekkoon euh, ak ci seen keppaar daal voilà man ci laa gimmee. kon Lamine Ndiaye moom moo la moo la féete mag. Euh, kan ci. waaw waaw Lamine moom moo féete mag. bon tuuti quoi parce que man euh, bi ñu bokkee nekk jamono yi tey yàgg nag li ma lay wax nii c'est c'est avant même les années quatre-vingt c'est donc euh, le au milieu des années soixante-dix euh, ma nekkoon nag ma féete ko woon ndaw xëy na suñu diggante daal peut-être matul dix ans mais jege na ko waaw donc man maa doon jouer ay rôle rakam moom comme du Diak parce que Mamadou Diak ak Lamine Ndiaye ñoom ñoo ma magoon souvent bu ñu daan jouer ci pièces yi man dama daan def seen rôle rak man rôle doom laa daan def en général comme ñoom aussi mais ñoom ñuy def rôle aîné donc Lamine soriwuñu mais dañu yàgg macha allah donc moo tax comme ni nga waxee euh, su ma ko gisee muy euh, am lu ko metti mu di ko wax ba rongoñam di tuuru loolu damay def bon lu ma lu lu ma tiis lay doon quoi mais nag ma di la yëngal lenn quoi gis nga digganteem ak euh, Sanex réeroo la rek waaw réeroo ñàkk déggoo ñàkk waxtaan ñàkk diisoo Euh, parce que xam nga nit bu la amee lee xaalis te xaalis boobu moom mu am fu mu koy yaakaar xaalis bi accès gul xam nga du ko mën a jox affaire bi compliqué wul quoi compliqué wul xëy na nag euh, maanaam foofu quelque part comme ni ma la wax rek ñàkk déggoo beeg diisoo bi moom moo jur réeroo boobu ba mu toll foofu mais c'est vraiment quelque chose que je regrette mais ñoom ñaar seen diggante en général mag ak rakk la wala mu doon tontoo da am ak euh, jarbaat waaw warul woon mën a yegg foofu mais nag xam nga dañuy wax rek seytaane fu mu xajul rek lay dugg ah donc euh, loolu loolu. mais papa kii sànneex dañ koy faral di dégg ci loo lu bëri quoi du benn ñaar chaque fois dañ da ngay dégg acteurs yu muy géeloo après ñoom problème caché ñi seen seen xaalis di yàq kenn en tant que Sanex nekk un professionnel du milieu est-ce que loolu war na ci moom muy yàq fay gars yi. bon xam nga nag gis nga euh, àddina li ñuy wax rek gis nga ku boot bukki xaj boobu la. xam nga tey même euh, son excellence le président Macky Sall euh, nit ñi dañ koy tudd ci lu ne fu nekk ñu fay tudd turam di ko ngawti ngawtee di ko kawti kawtee mais yàlla mooy def loolu euh, ku boot bukki xaj boobu la te nag aussi nit matul nit foog muy juum walla nit aussi foog mu tële dama la ne mbir mi ni mu demee mooy ni ma la ko waxee xaalis boo war a jox nit yow nga yaakaaree ko foo xam ne fii jotagoo ci xam nga loolu bu waxtaan amul diisoo amul ak yëgu boo dafay indi mën na dem ba indi ñëg mën na dem ba indi mer mën na dem ba indi xaajaloo mais xam nga ñoom ñaar rek wax dëgg yàlla pour euh, histoire xaalis et eh, waroon nañ ko mën a régler te sax euh, public bi média du ko yëg voilà média sax du fa àgg c'est vraiment dommage c'est regrettable mais je pense que loolu yëpp réglé na en fait voilà loolu yëpp réglé nañ ko waaw waaw non da nga naan kay réglé nañ ko voilà te xam nga loolu bu bu bu dal amoon tuuti rek ak déggoo ak yëgoo boo dafay régler te kenn du ko yëg te loolu nag mooy li nag parce que ay nit bu ñu bokkee benn corps professionnel et war nañ di di suturaalante daal c'est extrêmement important voilà voilà te ñoom ñaar ñëpp ay borom kër la ñu xaj na kii moom ak keneen ki waaye wax dëgg yàlla euh, dal ak waxtaan ak juboo dégg maam te rek régler mbir yi à l'amiable daal en général Sénégal loolu la ñu xaw a manqué waaw dañoo manqué daal am am dal ak euh, régler seen i mbir ci sutura man nag du ma leen ko reproché parce que yëfu nit la ah voilà yëfu nit la quoi. loolu loolu la mos la arrivé quoi. Euh, non mais man j'ai tu toujours su gérer euh, les situations yi nga xam ne et euh, dama dama jànkonte ak moom ci anam yooyu parce que gis nga bu la ci gën nax nag àddina yëpp sax laay wax ak ci métier yëpp dafa am ñu jub am ñu jubul man am na ñu may liggéeyal ñoo xam ne su ma paree ñu jox ma suma xaalis wala luñ ma wax alaakul yàlla dañ ma ko jox même buñ ma ko joxul ca waxtu wa danañ ma ko jox ba pare nag gis nga nit nit euh, booy liggéey doomu aadama man euh, li ci suma xalaat te ma di ko conseiller je ne dis même pas le public mais aux acteurs culturels aux artistes particulièrement euh, yow boo seqee ak nit ki contrat def ko ci kayit ci anam yu leer ba nga xam ne wóor na ne kii. bu la fayul ci anam goo xam ne di am wala ci xaar goo xam ne jaaduwul mën nga ko yóbbu ci yoon te dina la ko allah kulli alin dala koy fay parce que yoon mooy dox seen diggante voilà mais ñu bari xam nga ñoom eh, kàddu nit ki da di doy rek ñu dem liggéeyal ko xam nga loolu euh, maanaam euh, ci jamono sax kàddu moo gënoon sax euh, dégg nga am wér bind parce que nit ñi dégg am seen ngor dañ ko jiitaloon mais jamono bii ñu toll e ngore di gi bari na fii Euh, fis na fi fés goo xamante ne gii looy seq ak nit rek jëlal sa ay garantie garantie nag weesuwul bu ma lay liggéeyal ñu ñu ñu def contrat waañ ba mu leen nañ. waaw kon xam ne sama sama caméraman nee na ma waxtu bi léegi mu jeex macha allah aywa loolu mooy suñu papa tonton seen macha allah mais balaa ñuy coupé nga baal ma euh, kii aale euh, dafa am ñaari question yoo xam ne moom laa bëggoon a mujjee ah macha allah papa li la gën a neex. ci sa àdduna ak li nga xamante ni moo la gën a naqari damay tàmbali ci li nga xamante ni moo la gën a neex avant ñoo li la gën a naqari je crois mooy le décès de ton fils aîné macha allah xëy na sax loolu ñu bëri xamuñu ko mais bëggoon la nga ñëw ci euh, moment boobu nga xam ne c'était très difficile à vivre nga gëm yàlla gëm nangulu ndogalu sa borom euh, ñàkk sa doom rek na sa sa muy sa muy sa taaw dafa metti d'abord mën nga ñëw tuuti ci le décès de ton de ton fils aîné waaw suma suma taaw effectivement bon dafa génn àdduna euh, te xam nga waajur mu sañoon sa doom moo lay suul doom suul mais nag loolu la yàlla dogal te ci anam yu xaw a difficile parce que euh, car moo ko fekk fi mu toog mu def déviation ñëw euh, di nga am donc mbëkk ko mu dee nag ci saa si. sur le waaw sur le champ loolu nag xëj na. Euh, danañ ko sante yàlla parce que il n'a pas beaucoup souffert mais vraiment borom car bi nag dafa taw malheureusement ba léegi euh, bon y a eu une enquête de gendarmerie et tout bon donc ñun topp nañ ko euh, ba fi ñu mën mais affaire bii daal aboutiragul ba léegi nee na ñoo xamuñu kan moo ko rey donc ñu delloo suñu bopp si yàlla rek waaw gannaaw bañ ko yóbboo Touba eh, ba jébbal ko suñu borom mu doon nag lu ñu metti loolu parce que nattu bu bu bu diis la daal ci xol waaye dañu gëm ne nattu la rek waaw ñu jàpp ko noonu daal waaw waaw waaw loolu loolu nga maa ngi jégalu sax sa ci ci question parce que wax dëgg yàlla loolu loo xam te ne ñu bëri sax xamuñu ko mais maanaam euh, ñàkk sa doom roog na mu nekk doom bu góor dafa métti papa loolu macha allah c'est très euh, est-ce que police liggéey nga liggéey bi ci war dëggantaan parce que tamit yaakaar naa ne ak léegi police nu mu nu mu yaatoo ci Sénégal normalement chauffeur de caapir war war na ko mën a jàpp. non non yaay gendarmerie sax la ñu la ñu ñu la ñu jox dossier bi ah directement boo ñun li ñu waroon def yëpp comme dossier def nañ ko yóbbu ko ah mais bon mi ngi noonu daal. waaw waaw waaw waaw mais. yaa ngi dem tax taxale ko àjjana. ñun nangu ko quoi. voilà. Euh, li la gën a neex sa àdduna mooy euh, rencontre président Macky Sall ak euh, sa sa président Abdoulaye Wade par le khalife général des Mourides sëñ Sidi kii sëñ Bass Abdou Khadre non sëñ Mountakha Mbacké macha allah donc dama gis nga koy mu mun doon loo xam ne da da laa neex la ma tax nga ne loolu moo la gën a neex ci sa àdduna. parce que xam nga loolu nataal la goo xamante ni gii et dafay firndeel ne Sénégal. il de a des chances il possibilités pour que acteurs politiques yëpp et manko juboo autour donc euh, d'un d'un disons euh, d'une union euh, sacrée xam nga union sacrée mooy lan ngeen xool ne yéen li leen boole euh, moo leen moo leen moo leen moo leen moo leen sut yéen ñëpp muy Sénégal et donc ngeen ànd joxante loxo mais loolu dara gënu ko foor donc sëñ Mountakha il a réussi cela entre euh, Ablaye Wade euh, Khalifa Sall euh, à l'endroit donc du président Macky Sall ñoom ñëpp ñu vraiment ñu dajaloo booloo et nuyoo àndandoo sur une photo yëkkatindoo seen loxo ñoom ñëpp wane ne eh, Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar et que donc l'unité des cœurs hein, et l'unité également de Sénégalais, euh, il n'y a pas symbole euh, plus fort, n'est-ce pas, que ce geste-là. donc loolu man dama ko rafetlu di ñaan yàlla nag loolu am ay njeexital aussi waaw mu mën a ne bañ a nekk ci ay wanewu rek wala ci ay wax rek mais vraiment mu dëggu ci ñoom ba nga xam ne Sénégal ñoom ñëpp dañuy toog vraiment autour d'une union sacré hein pour euh, pour pour donc xool intérêt réew mi vraiment ñu xam ne réew mi moom et ku ko yàlla dénk rek allah kulli yàlla moo ko yore mais ñu yore ko ci anam yu rafet yoo xam ne dina tax sénégalais yi am jàmm mais dina tax ici euh, réew bi jëm kanam voilà man loolu vraiment bokk na ci euh, li li waa lii ma gën a neex. ci li nga xam ne fekkee naa ko ci suma àddina ci Sénégal parce que man euh, disons que man dee laa gën a jege ko dund donc damay ñaan yàlla vraiment Sénégal bàyyi ko ci ay loxo yu yu set ay loxo yu wér ay loxo yu xereñ mais aussi ay loxo yoo xamante ne wóor na waaw loolu laay ñaan yàlla di ñaan yàlla vrai te loolu nag bon politiciens yi bon ñoom ñoo ko mën a maanaam garantie politiciens yi ñoom ñoo war a xam ne ni ñu jiital intérêt Sénégal balaa ñuy jiital seen intérêt personnel loolu bu amee rek gis nga sa élection mën na fi am cinquante dix mille fois n fois mais lépp ci jàmm lay mujj quoi waaye vraiment vraiment. am na solo kooku mooy tonton Sène suñu papa suñu xarit macha allah waxtaan bi neexoon na mais xam nga lépp tamit temps moo xam moo xam ne demee noonu ñu la nga wax sa dernier mot et puis ñu gisee entretien bi ak Feeling ndakaar parce que tamit du wax ne yow tamit ku ma ku ma nga parce que bu njëkkoon beneen bi beneen chaîne la woon mais léegi Feeling ndakaar yaa ma gën a xam donc nga wax Sénégalais est-ce que bëgg nga ci entretien bu baax. waaw waaw mais vraiment bon d' abord yow di la di la di la nuyu di la gërëm di la sant yow ak Allé sa cadre sa cadreur bi jantal booy <laughs> waaw waaw ñu di leen bëggee vraiment bu nekk ngeen nekk une équipe jeune et dynamique ñu di leen ñaan ngeen jëm ci kanam liggéey ci Feeling ndakaar loo xam ne wax dëgg yàlla et àddina yëpp dina ko rafetlu sénégalais yëpp tout le monde donc euh, bon di di gërëm di remercier également bon suma waa kër sama njaboot di gërëm suma soxna yi Mimi. Eh, ak eh, ndak Mayoro fay waaw waaw waaw sama ñaareel bi sama ñaareel bu sooful bi waaw bon di remercier également donc di gërëm eh, sama naataango chef de quartier yi waaw fii si commune Grand Dakar bi nga xam ne Amar Niang mooy seen président man may seen vice président donc di leen gërëm ñoom ñëpp et partout à travers le Sénégal je dis donc aux délégués de quartier bravo parce que ay jàmbar ngeen vraiment yéen wi diis na te wax dëgg yàlla Euh, maanaam cër bi ñu leen cëralee ci wàllu koom-koom woyof na mais nag loolu la yàlla dogal et ñu sante ko yàlla xam ne ñun e dañuy jaamu yàlla ci suñu métier mais di remercier également mais mais partenaires de la santé parce que man euh, dama bokk ci lu ñuy wax équipe mobile bu euh, donc centre Gaspard Samara Camara Gaspard Camara c'est le district centre bi nga xam ne moo ëmb maanaam benn pàcc ci ñett yi ñu ko def ci Ndakaaru dafa am district est ouest ak centre district centre bi nag euh, sept commune la ci nga xam ne ñoo wër commune Grand Dakar district centre donc euh, yilif leen maanaam ci wàllu euh, activité santé man ma nekk fa ci benn équipe mobile boo xam ne dañuy jàppale askan wi n'est-ce pas en tant que acteur communautaire lëkkali ko ak ay techniciens de santé ñuy di nga dimbale askan gi euh, ci ay programme donc euh, tel que euh, la vaccination contre la Covid-19 mais aussi la vaccination contre le cancer du col de l'utérus may remercier di sant di gërëm nag particulièrement donc docteur mbay mi nga xam ne mooy médecin chef district santé wax dëgg yàlla parce que vraiment mi ngi gérer donc le district avec une main de maître vraiment avec beaucoup de savoir-faire n'est-ce pas sur le plan technique mais aussi sur le plan humain Donc c'est pourquoi il fait travailler tout le monde, aussi bien les techniciens que gox yi les relais, tout le monde, n'est-ce pas waaw waaw waaw waaw parce que ñoo ñëpp dañuy liggéeyal askan wi rek parce que wér-gu-yaram nag gis nga bu ko nit defoo rek lenn du ko mën kon yàlla nañ ci yàlla dimbale di ñu gunge et ba suñu mission donc ñu atteindre ko di sant di gërëm ñëpp di gërëm aussi le maire de Grand Dakar monsieur Jean Baptiste Diouf en passant par le docteur Sène mais aussi euh, Ndeye Sali Ndeye Saly Diop également waa qui était ministre donc voilà voilà voilà suñu tata quoi waaw waaw waaw mais ak sama waa kër yëpp ah, parce que ñoom nag du ma leen fàtte eh, Aïssatou Fall Abdou Khader Fall Aw Fall Jibi Fall eh, mais sœurs mais frères ñi nekk fii ñenn ñi nekk bitim réew waa yéen ñëpp du leen ñaanal jàmm ak dégg nga wér ak wér léegi mucc ak mucc la di ko ñaanal njaboot gi yëpp di ko ñaanal Sénégal waa di wax yàlla na yàlla jubale xol yëpp ñu nekk benn Sénégal jëm kanam. et nga wax gars yi ñu dem ci Feeling waaw yéen waa Sénégal yéen waa àddina maa ngi leen di digal nag e ngeen abonné Feeling Dakar parce que Feeling xam nga soo nee Feeling rek wax nga lépp waaw Feeling dafa niroog sugar daddy bi ñu may woowee lépp nekk da nga am ay baax baax rek waaw waaw waaw ay mbég ay ay ay ay mbégte waaye itam doon ay information yu am solo doon aussi liggéey bu set te sell. kon Feeling Dakar maa nga fa fekk si leen ma fa ñu bokk fa abonné jaa ngeen jëf gars yi. ça allah sama entretien ak ki nga xam te mooy sama papa sama xarit moom macha allah chaque fois sama entretien ak moom dafay neex xëy na sax ma lépp li ma programme sax xëy na mujj mu ko laaj mais xam nga temps moo moo demee noonu maa ngi gërëm baax a baax suñu suñu kilifa yi ah, ak madame Diop macha allah ñoom ñoo ñu mettre à l'aise jox ñu ay moyens ñu liggéey macha allah di gëm encore sama xarit sama frère Aliou Sow nekkoon ci canal jàmm ak salaam yàlla am ci askan suñu gaal Ndiaye jërë ngeen jëf